bàyyil ba mu tas bañ génn. boo jëm. ba mu tas ba nga gis ba nga dégg. su jeexee su jeexee. donc boo 22 22 heures. xoolal ma stade ba rafetul xoolal ma lii Papa waa ngi noonu xoolal ma Papa Sow dara ji na Tyle si to. Papa Sow a ngi noonu di xataraay ne day bëre ñoo ngi ko jàpp Papa Sow lamb ja yàqu na waaye mënut a dégg loolu Papa Sow lambam yàqu na waaye nanguut a dégg loolu Papa Sow ngay xataraayu nee na day bëre. Papa a ngi noonu di wër géew bi. Papa a ngi noonu. Papa Awa ngay dem làmb ja yàqu na ja yàqu Papa Awa miir Papa Sow day miir xoolal ma Papa Sow médecin bi nga koy laaj waaye Papa a ngi noonu.